asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokkum jullit benn xadis ngi boo xam ni buxaari yu ak muslim yépp soloo nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di wax ni képp koo xam ni saraxe na lu toll ne doomu tàndarma képp koo xam ni yëkkati na lu toll ne doomu tàndarma xam nga doomu tàndarma lu tuuti la lool nga yëkkati ko joxe ko sarax ngir yàlla waaye nag min kasbin tayyib nee na tàndarma booba nga saraxe fekk yaa ko fàggul sa bopp muy fàggul wu lew danga am sa alal muy alal ju lew nga liggéey sa wërsëg muy liggéey bu lew yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nga yëkkati lu tol ne doomu tàndarma ci tuuti waaye saraxe ko te yàlla rek tax nee na yàlla dafay nangu sarax bi ak loxo ndey yàlla day nangu sarax bi ak loxo ndey waaye nag jël sarax boobee di ko yar maanaam loolee dool doo toll ne tàndarma yàlla borom bi tabaraka wa taala daf koy jël di ko yar di ko yar di ko yar nee na comme kenn ci yéen ni mu yaree aw molam wu ndaw maanaam aw fasam wu ndaw ni mu koy yaree kenn ku nekk su amee aw fasam wu ndaw ni mu koy yaree noonu la borom bi tabaraka wa taala di jëlee tàndarma bi di ko yaral boppam di ko yar di ko yar nee na di yar tàndarma boobu ba mu toll nekke montagne wu mag moom borom bi tabaraka wa taala mu garde ko ëllëg yowmal qiyaamati nit koo kee joxe woon lu toll ne tàndarma ngir yàlla su ñëwee yowmal qiyaam dafay fekk loola mu toll ne montagne borom bi tabaraka wa taala jox ko ko lépp di ay tuyaaba mu ne ko lii day tuyaaba joo xam ne yaa ko moom mooy sarax boobee nga saraxe woon ca àdduna te mu toll ne doomu tàndarma nga joxe ko woon ngir yàlla kon mbokkum jullit joxe ngir yàlla dana tax nit ki am ay tuyaaba yu bari ëllëg yowmal qiyaamati beneen xadis na ngoog boo xam ni buxaari ak muslim soloo na ko yàlla borom bi tabaraka wa taala moo ko waxal boppam yàlla day wax ni anfiq yabna aadam unfiqu alayka nee na yow doomu aadama lii ma la wërsëgal man sa borom dee ci joxe ngir yàlla su ko defee man mii it ma di la jox man ma di la yokkal sa wërsëg kon képp koo xam ne yor nga alal di ci saraxe ngir yàlla borom bi tabaraka wa taala dafa yokk sa wërsëg comme ni mu ko waxee ci alquranul karim yàlla nee na wa ma anfaqtu min cheyin fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raziqin yàlla nee na lépp lu ngeen joxe lu mu mën a doon ngir yàlla borom bi tabaraka wa taala dana leen ko remplacer ndax mooy ki gën mooy ngën ji wërsëgalaa kon moom borom bi tabaraka wa taala kon bokkum jullit lépp lu la borom bi tabaraka wa taala jox ci wërsëg dee ci dimbale say mbokki jullit balaa dee di dikk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu